sien sen dund bi lepp ndax ku xoor weeru koor mu jeex am nga am nga nga ak ku fuki fukki fukki fukki weer bo gungé juroom benn weer ci sawal am nga ku xoor hadmi yépp ku ko taqoo nag lu sa dund bi gàtt gàtt sa dund bi yëpp xoor nga ko ndaxte man jaa bil xasna fa am fukki weer lay doon boo ca boolee juróom benn weer nag muy mat fukki weer ak ñaar moo tax gunge baax lool gunge moom bu weeru koor yu jeexee na ñépp jéem a balaa weeru sawal wee jeex nga fexe ba woor ki juróom-benni fan bu sarta nag ne bu ñu wooree rek nga ko cay tofal déedéet moom daal bu la neexee noppalu fukki fan bu la neexee sa nopp lu fukki fan ak juróom door ko door indi juróom-benni fan yi juróom-benni fan yi tamit kenn du la wax ne da nga koy taqale defee ko noo manee bu la neexee taqale bu la neexee teqale ndax yonent bi dafa noonu man saama ramadaana suma atbaahu bi sittin bi sittin jooju mu wax nakiraal ko moo tax fexel ba juroom benn fan yi dugg ci eh, weeru sawar rek waaye bu noonu bi si kon bu weeru koor bu ne soxbaan jeex na rek ñi ñi ñi woori di julit korite gi ci ëllëg sa ndey door a commencé te da nga koy toftale waaye bis la wax de kon noo ko mënee rek xam naa nag dana bëri ñu bëri ñu may déglu man daal grand combat rek laa man man daal combat bu mag bi rek mais daal weeru koor daal moom comme gan gan la goo xam ne fa mu jëm na fa du ko gunge du ma ko du ko gatandu waaye gunge ko baax na lool gatandu ko baax na lool ak a xam solo